mboot mun na am nooju mun na am bari na xeeti jël yoo xamante ne mun na gën a ci combat ci ñaari mbër yi am combat de tricher la Ama Baldé sa bëree combat de tricher amul da koy bëri ba mu jeex mu daan baa ngi daan ko Modou ñaari mbër yi bëre am boo xamante ne mooy jiitu ci làmb moo mag tuuti moo ëpp ay combat dem ba tey titre roi des arènes kon boog dañuy jàpp ne ka dend moom war a ñëw dafa ñëw pour détrôner ko jël ko loolu da moom si am mbër pire day nekk ci digg géew bi di daan di daan di daan ku ne di ko wut daan ba kenn daan kuy daan nag ñu xam ne en tout cas ñaari mbër yi ay mbër yu valeureux lañu ku ci ne wane nga wane loo xamante ne dalal nga xelu nit ñi ba tax tey bis bu mel nii kañ ngeen gi ji dégg coow làmb lu mel nii coow làmb yu mel nii damaa ëppal sax ne boo cinquante ans yu nekk beneen nga koy dégg xam nga bari fi nag boo koy lim nag Frank amoon na ko Falaye Baldé bàyyi Ama amoon na ko El Hadj Birane Ndiaye amoon na ko Amoura Sarr Mbaye Guèye Manga Double Less buñ koy lim duñu mën a ñim lépp ba ci ba ci man mii ba ci moom man daw taasem ba ci Yékini ba ku ci ne am nga bis boo xamante ne mm. bis bu rëy la ci biir àdduna ku nekk nag bisi na duñu tolloo mm. waaye bii nag ndax mu yéeme te jaaxal doomu aadama yi ñeenti at la ñu ne juróom ñu ne ñeent mm. mais dafa gudd deux mille dix neuf ba naka ni tey ci benn combat ñett ñaari mbër yooyu tey sonn nañ promoteur boutique islamique tam dee na ndax ay centaine de millions la teg ci benn place ñeentaat jurul puusul demul daa da ciy perte peut-être ñaari mbër yi tamit préparé nañu benn yoon tib ci combat ba combat ba yàqu ñu waat di préparé waat jubaat ci combat bi ainsi de suite koy jël rek di ko seen poste la ndogal yàlla seen biir carrière war naa ko toog ñeenti at wala bëri benn mbër mënut a sotti yàlla na ko sottal suba bu sottee na mu doon ubbi ko mm-hmm. ba tax trois tous les trois mois ñu mu nekk mm-hmm. euh, mm-hmm. guddi bëccëg après Modou Lo xëy na bu xëyee dépense dam na xaw a jafe wala Ama Baldé dépense dam na xaw a à mais début bi dina gaaw mais si ay secondes lay yem wala est-ce que après tiré à loolu nag si moom loolu des. ah état physique yi. noonu gis ñoom nañ kenn du bëri final. xam nga tey drapeau dañuy wax ne mais lii tey finalu làmb la. ñu ngi la. en comme bu doon football tey dañ euh, final la. final nag dafa am nañ ko war a aborder. Mhm. moo tax ñaari kaay yi seen staff am nañ solo si combat trop ñoom ñaari cas mhm. seen staff mooy déterminé pour mhm. gagner combat bi. acca ah, ah, ah. donc par hasard ma ñëw fii rek fekk fi le président mhm. une grande première mhm. ci làmb muy suñu fiarte di suñu mbégte aussi parce que général drapeau euh, un combat royal ma mhm. suñu ko tuddee mbërum làmb en général ñu ngi koy tuddee président ministre député mais tey ñu tuddee ko mbërum làmb kon dañu delloo euh, buum ca mboy boy ba aussi il a mérité quand même parce que pour dire vrai à son temps il a marqué son temps. ci ay combat yoo xam ne def na ko fii def fi jaloore. Ah. donc am na loo xam ne boo ko defee da ngay bàyyi sa empreinte. donc lii lu ko dab la mais yeneen a ngi ñëw. Uh-huh. parce que il le mérite pour dire vrai il est un lutteur. Uh-huh. ñu bokk génération mais il le mérite. moo tax tey bi ñu ko tuddee drapeau bi ñun ñëpp a ba tax na sax. di avant première bi la mais bu subaa di ngeen gis lu kenn mësul gis mhm. bu subaa mhm. non bu subaa xam naa ne comme ni ko xale yi di wàccee rek mhm. euh, waxee rek lamb bi dina wàcc soo ba zéro insha allahu rabbi ah, mais ñaari mbëri loo ma ci wax waaw ñaari mbëri de li ma si wax moom moom la ñëpp wax rek ah. xam nga ma dafa mel ni sax euh, cette fois ci euh, commentaire wala kii ah. cette fois yi ñu bëri dañoo xaw a mais il faut ñu wax nag. Ah. dañu parce que làmb la amul combat bu fi mhm. amul combat boo xam ne bëriwuñ ko fii ñun. kon bu ñu waxee nag nañu nga déglu. Mhm. làmb soo bi. Mhm. kii dafa am sañ-sañ. kii attentif. ku am sañ-sañ. ki am sañ-sañ mooy amaa wax na ko ko. boo gisee si ci ci seen si seen wax ñoom ñaar bataille euh, bataille psychologique yi. Ama nee na ko kii ma gis nii su ma xamoon ne nii la toll kon du ma jaral 1000 francs Modou Lo ne ko ah man kat combat bi ama samay combat mhm. amateurs yi ñoo daan wala supporters ñoo doon taxaw sama combat bi combat bi man maa ko jël sama bopp mhm. kon nga xam ne nag ñu ngi dem si combat boo xam ne mhm. du yomb bu arbitre bi soufflé ama du bàyyi yoonam dañuy wax nii rek pour mais bu arbitre bi soufflé dina jéem a dox si kawam bëreeg moom dox si kawam bëreeg moom nag lu ne na si am la mu bëgg mun na ko am wala mu bañ kaa ñàkk am waaw bu waaj bu waaj yi prix daawul la bëgg dox si kawam am li mu bëgg ba prix daanee nag mun na dox si gaam du moo si waatal loolu sama baat waaw xanaa pare nag incha allah sant yàlla li ñu doon ñaan yàlla yi ma ama ñu doon ne dañ la koy gàttal rek parce que interview xaju fii émission xaju fii lu gën a urgence mooy wax nit ñi billet yi commencé nañ ko jaay tey samedi le 4 képp ku bëgg euh, billet mën nga contacter Fallou Ndiaye Euh, vente yi commencé nañ ko tey point de vente yi am na arène nationale Iba Mar Diop CDK e Pikine Alboura place Fallou Ndiaye Canada ku amul numéro nag numéro baa ngi doon défilé ci écran bi mën nga cee woote léegi léegi dem jël sa billet gaaw dañu bëgg suba ñu teel a tijji porte yi nit ñi teel a dugg ragal naa ne loolu moo gën a urgence ñu wax ci loolu exploité ko gaaw nit ñi jot mu gaaw. Ah, euh, loolu moom lu rafet la lu jaadu la di ko gërëm ministre des sports monsieur Lat Diop parce que bi mu ñëwee ci moom la xewee nit ku nekk ak sa ay ayam lii la tombeel mu defal ñu ko ñu ko ci sant di ko ci gërëm parce que lii lu ñu yeex def la parce que yaakaar naa depuis bi combat commencé woon ba léegi chaque jour sévi day dañ nit ñi di ko kaas di jéem xaañ ay nit ragal naa nag kenn dootul xaañati kenn kenn dootul defati kenn dara ndax sévi yëpp dañ kon ñu ngi gërëm ministre bi di ko ci sant ànd ci ak CNG. kontaan nañ jërëjëf. dèjà rek dama ne lamb bi ñu ma lu ma ko bokk kenn ku ñu association bi sax tax na ba boo déggee jàmm incha ñoom ñooy sama seen invité ah sama kër. donc ma di woo Samba ak Demba fu mu fi bindee am naa ñu ko mate ñooñu laa woo ñu toog sama kër dimbal ma ñu ndékkee ndaw bu ñu bëggee añandoo ñu jogandoo lool doo ñu fi àndal. Mhm. te yaakaar naa ne le maximum possible ci association bi dinañ ñëw. Mhm. donc loolu nañ ci remercier aussi suñu kilifa suñu mag ah mun nga nekk président te doo nekk kilifa. mais mhm. Hadj Birame Ndiaye mooy suñu grand jox ko cër bi ñuy digal ñuy def ñu tere ñuy bàyyi ak ñenn ñu ne ñoo am dëgg ci ba nga fa grand Mbaye Cissé les yoo xamante ne tey jii li ñu laal seen quatre-vingts boo xamante ne mun nañu ki fi mag mën na ay quatre-vingts ans yu jege ki fi gën a néew nekk ci ay vingt-sept ans am na sax ay xale yoo xam ne ñu ngi bëri ci làmb te actuellement seen loxo set lool ñu dugal leen suñu biir biir ñoo ko xel di ànd ak ñoom bu ñu bëggee tamit ñaanal leen mhm. waaw donc euh, euh, ñaari mbër yi dañ leen bëgg a fàttali rek ne leen dara du làmb ci ngeen tuddee jeeg ñi àndal dañoo bëri ba bëri jeex dañoo bëri ba bàyyi ñëw toog war leen seetaan si sagal leen sax war doy sëkk rek ci war ñu combat bu neex war ñu yar war ñu teggin ki daan ki daan yëkkati ko ñu kottante dem seen yoon te xam ne dinaa bi toppaatal làmb day amaat donc euh, conseil bi ñu mën jox dara rek ñu def fulla ak fayda ci li def war ñu bëri bu leen nangi nag wëlbati gàll wala guddi ba ci taxaw ñoom ci suuf wala ko peñ cëpp mën a jóg combat yu mel nii dafa leen nañ boo déggee ma ko peñ cëpp mu daara mooy gi doomu daara mën na am ci combat bi wëlbati na